Fatou ginnaaw bañ la masoo soo di la jaale yow yaa nekk loolu ak sa xarit Marie Guèye suñu borom dogal mu dem wuy ji xam nan la demee da nga nekk si géej gi ak buñ koy yóbbu. Ah, man damaa ñëw laaj ko Maria lan la mu ne ma daf ma laaj sama carte ma jox ne ma yow doomaraam la ma nekk sama yaay jurul doomaraam après si laa nekk indi sa saag bi moo indi saagam taxaw ak ñoom man ma yéeg dem di déposer saagu Maria bi jël sama téléphone ne dafa am ku may woo pour ñu libérer Maria ma ñëw im Maria fekk mu dee biñ koy dugal elle est vivante biñ koy wàccee mort lañu wàccee xaw ma si biir bi nan la demee si kaar bi. si biir oto bi lañ ko dugal. si oto bi lañ ko dugal waaw te biñ ko jàppee di ko dugal. am amuy dugg si oto bi man vidéo naa ko maa ngi vidéo ñu giital ko nii di ko dugal ba ma koy tooñ nakaan ah, marigéey demal si géej bi marigéey di reetaan na man faa dañ ma tooñ maa ngi dem maa ngi ñëw ci laa yéegee dem déposé sac bi bi ma déposé sac bi ñëw ñu fekk ñu ko foofu noonu ma làmb fekk marigéey mu dee mhm. ñu bëri tamit ñu ngi wax ne balaa ñu temps bi ñu koy yóbbu da doon ki nga moom mooy gendarme bu jigéen bu war xam kaddu yi ñoo échange yan genre la parce que moom moom expliqué loolu ne ma def ma laaj ma carte ma jox ko carte mu ne ma doomaraam ga nga la ko ci la ko gel bu waxee ñu nag ñooñu yóbbu ko ñu yóbbu ko si oto bi ñu ngi koy dugal muy dund mais bi ma ñëwee di xool Marigué dama fekk Marigué dee ñu bàyyi ko foofu noonu. loolu ñu xool nga ko. Mhm. fekk mu dee. waaw yaram yaram amul benn ay. isaan boobu man ma seetlu loolu sax ci laa xaaree bàjjanam ñëw ak benn doomu bàjjanam ñoo ko yóbbu ba hôpitalu Ngor. Mhm. Mhm. maa ngi woon hôpital man ak bàjjanam ak doomu bàjjanam ñoo ko yóbbu hôpitalu Ngor après médecin bi si la génnee ne néew fi andi man xam naa ne néew laa andi foofu noonu. kon bu ngeen koy yóbbu biir hôpital médecin bi mais yaa dugal nit koo xam ne day dund wàcceel nit ku dee kan moo ko war a rey amul benn feebar lu dul goatar laa xam si moom. te Guattare boobu yàgg na ak moom waaw. Mary Gueye kan la woon si yow. Mary kenn la woon ci man sama mag la woon sama yaay la woon sama xarit la woon mu jox ma cër respecté ma déggal ma bëggul ma mer bàyyi na fi ñaari doom bàyyi na fi ñaari xale ñaari seex kenn ki la ko tuddee. nit ku baax ku ma yëg teg si respecté ma dañ doon dem ba naan ma liggéey dama ragal ndax déggal bi ma déggaloon jox ma respect te mooma man bëggul kenn mer jour mu ngi si man kii laa nekk sama place chaque jour mu ngi si man du def loo xam ne nii yëgu ma ko jour soo amee euh, message bi ngay wax askanu Sénégal ginnaaw ñu bëri découvrir Marie Gueye si anam bi mu daal di koy faat fi nga xam ne dafa dëkk si Ngor ba message ngay laas Sénégal leen wax sa xarit nan la sama xarit bi na bëggoon na nit amoon na yërmande tamit si nit fu mu teg fu mu toog kenn du mer ñëpp ay ree lu rek merci beaucoup am na loo témoignage war def par de seen mari am na ñu jaaxale waa Sénégal waaw maa sama doom la ndax man ak papaam ay doom mbaay bàjjanam laa bàjjan nag la may woo ba jeudi jeudi place ñëw ne jox ma benn parfum bi lay man wax yu chaque jour si man lay jëkke waxtaan bu paree dem il bu oññagoo si man lay mujje ba dimanche sama mbokk may jaayandoo kanet yi dese yëpp moom moo ko jënd may ko xale place ma rigee amul benn problème ku baax ku baax mais gendarme bi colonel bu jigéen bi bu deful woon lii man dina ma bett ndax chaque jour palage ñun fa laay jaayee man vint deux ans maa ngi jaay foofu chaque jour place ni la ñuy def bu ñu jaay ba ay vingt et une heures day ñëw acca laale leen commencé di yokku nit ñi te boo laajee nit ki dentité da lay jox mais nit boo ko laajee dentité bu la joxee da nga koy bàyyi mu liggéey n'est-ce pas bi passé ñuy jaay gerte euh, xale yu góor yor sa keesi gerte yëpp la ramasse ma ñëw di ko wax ne ah madame pardon de doo may ñi mais def ma finiti fële place lay def descente ak centre am nga ma ngo mais place lay def descente benn gaa bi da doon naan jus bouteille bi daf ko padd mu aw fële ndeysaan loolu la leen jiitale yóbbu leen chaque jour lii lay def man mardi heureusement jaayu ma mais samay doom li leen jaxal ne ne sama yaay buñ jaay woon moom affaire bi moo koy jël parce que dama toog benn waay yoo moom oo ne ma waa sagar ma nekk naa mu ne ma waa Marie Gueye dégg naa dafa dee ma nekk dee Marie Gueye dee ma ñoo nekk mu ne ma ah nee na gendarmerie place moo ko rey ma ne rey ma ne ko coupé mu coupé ma woote place ki ma woo mu ne ma moo ngi nii léegi léegi dañ ko laaj identité joxe na ñoom ñu jiital ko mu yoroon sandwich di lekk ñu jiital ko mais gel bi da ko xas ne ka doomu xaraam moom mu fayu mais ndey ndey rek la nit bu saagee day fayu nit boo respecté sa tenue pour man doo saaga nit man xam naa ne billahi maa ngi ci dëj bii bu ma fa fekkoon man ak moom ñooy mujj affaire parce que duma ko bay mu yóbbu mari de man xam naa loolu man du ko bay mu yóbbu parce que Maria du nit ko bon xale bu baax bu bëgg nit mu nekk kenn du ñëpp ñëppay ree billahi wallahi taala man du ma waxantu ba mu yéegee affaire bi si lay jubal hôpital bi may dugg net hôpital ambulance bi mu ngi koy jël di ko yóbbu autopsie monsieur le maire fa la ma fekk si la awoon ko maa ngi si garage bu trois heures du matin te man tey ni colonel bi ku ma laaj dinaa wax bay boo na def engagement tiituma dara ma dara mais dañu sonal ñun ñii nekk kii di jaay dañu sonal dañu may jàmm ñun ñu liggéey ñun amuñu lu dul géej fii rek la ñu am amuñu dara ñu ngor la ñu am mais on est des ngorwaas buñ est-ce que mën nañ génn dem dëkku jàmm di fa tedd mënuñu ko hmm? mais chaque heure dañuy énervé chaque heure amul lu mu dul def xale yi bu fekkee dafa am ay banditisme na dem si banditisme mais mu jël leen wala mu xam na muy def ay ñoom mais ñi nga xam ne dañu ñëw pour féewloo wala ñuy ñëw pour liggéey jaay nañ leen bàyyi ñu nekk seen jàmm man loolu laa gis ah non man biñ koy ramas man ma fa man dañ ma woo te ki ma woo man maa ngi ngor mais ki ma annoncé affaire bi yoof la nekk wala ma saga dégg naa Maria dañ ko dañ ko rey foofu ma ne ko déedéet loolu amul ma ma coupé oote place ñu xamal ma ne léegi la ko gendarmerie jël yëpp nañ ko si oto bi mais wàcceel nañ ko sànni ko si tali bi mais ki ñu gis dafa dee si laay dog daw rek génn sama doom bu góor bi day nii douze ans la am moo ngi woon foofu di osot mais dana ma yaay dëgg la parce que Marie gendarme mu ngi ko jiital mu naan kaan yóbbu ma yóbbu ma ma nekk Assane yaa nga fa mu ne billahi yaay gendarme moobu daa soxor xale bu am douze ans wax na loolu moom waajuram dafa wàññeeku Marie Gueye waajuram yàññeeku na yaayam wàññeeku na ay mbokkam la fi nekkal ñun ñi ay bàjjen lañ si moom mais wax dëgg ne yàlla du xale bu bon ku baax la ku baax la fu mu nekk kenn du ñëpp ku baax la waaw lépp lu mu am lu muy bokk a doomu aadama yi lépp lu mu am nag lu muy bokk a ñi ñi la billahi wallahi taala xale bu baax bàjjan laa si moom waa mbir mi de ni mu demee mooy euh, Marie Samba benn xaritam moo doon anniversaire ci plage Ngor bi moom mu gendarme yi brigade Wakaam ñëw di ramas même pas sax vingt une heure léegi fi ko fekk muy commandé lekk moom mu ngi yor sa benn sandwich di lekk fan la commandant bu jigéen bi nekk wakaam fekk ka fa ni que eh, eh doomu xaraam imbécile bi faale ko mu dab ko dóor ko ci mbagg bi daa ni ko imbécile bi yow laay waxe mu nekk man du ma imbécile ba nga naan ma imbécile ndax sama yaay ji ma jur ba dee dund na ba dee te mosuma wax imbécile léegi mu nekk waa jàmm sa pièce di daan ju tey ndax yow imbécile nga xàmmee naa la ndax xàmmee naa la boobu mooy temps yi manifestation yi ñu bëggee jël suñu parking bii fekk ñu suñu dëkk bëgg jël suñu parking bëgg jël suñu alal boof si te duñ ko nangu si xeex boobu mitti boobu te ñu royoon si xale bu jigéen bu tudd aji moom lañ ko ràññee woon si vidéo yi moo tax mu nekk imbécile bi yow xàmmee naa la xale bi naka ma duma imbécile te wax na dëgg du imbécile te ay imbécile juruñu ko ndax amul famille imbécile léegi foofu mu nekk jox ma sa pièce d'identité ki nga laaj pièce d'identité mu génn pièce am jox la ko xanaa ba nga ko bàyyi mu dem mu nekk topp ñu mu ñu topp moom mu topp leen bi mu leen toppee ba ci oto bi ñu la ko yéegal mu yéeg bi ñu génnee ak moom rek lañ ko jàpp dóor ko ba mu dee ñu wàññee ko waat ñu sànni ko si parking bi bay nag vigile gardien moo si yam daal di def alerte woo nit ñi ñu ñëw ñu woote kër ga ñu ñëw biñ ñëwee fekk nañ deena bu yàgg ndax ña bañ koy sànni dena ndax ñoo ko rey ñun nag waa Ngor ñoo ngi maasawu Ngor gépp ndax mari mbokkum Ngor gépp la ndax Ngor lañ juddoo fi lañ yoroo fi lañ màgg ay maamam li ko dal metti na mu waaye fi ay seex ay tut tànk yu ndaw te jotew lax ñoom dara Euh, ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo war a yor sa kaaraange buñ demee bay jël nit ñi di leen fitna di leen rey métti na métti na torop fu métti yam rek métti paase naka ñun nag li ñuy wax mooy monde entier na ñu dégg gendarme yi nañ génn ngor nañ ñu aba suñu dëkk bu ñuy rey di dinañ ñu rey suul ñu fii waaye ñun duñ génn dëkk bi ñoom seen bëgg-bëgg yëpp ak ña leen jiita muy état. si bëgg-bëgg yëpp mooy ñu génn ñu ngor parce que ñun ba ñu nekkee ba ñu juddoogul lañ ñu bëgg génn ngor yóbbu ñu jam ñaajo suñuy maam bañ ak suñuy bàyyi fi nekkoon léegi nag xale tey fi nekk la maam yi daan bañ la ñuy bañ fii duñ fi génn tey duñ fi génn suba nañ ñu rey te li ñu bëgg mooy suñu dëkk nañ ko génn wala duñ si bañ dara mari nag ñu koy ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gën a fi mu jógee njaboot gi yàlla teg si loxo waaye ñun waa yëpp pare nañ pour gendarmerie rey ñu si Ngor suul ñu waaye duñ ko génn parce que metti na trop trop trop trop trop coowal ñoom loolu lañ góox parce que ñoom duñu xeexax ngor ba am ndam naxar boobu moo des seeni xol naxar boobu parce que xoxotal nañu ba sonn mënuñ ñu suñu dara naxar boobu moom la ñuy venger wu ba tey mais nit ñi plage lañ am dañuy génn dañuy doxante dañuy feexlu parce que ngor dafa xat kër yi dafa tàng vingt et une heures booy demee di ramasser di ramasse loolu amul fen du yoon nañu bàyyee suñu dëkk ñu génn dëkk bi abal ñu gendarme yi. da ngeen fekk ci moom ay gaañu gaañu wala dóor bi non loolu moom lu ma leer parce que juste jusqu'à présent gisuma corps bi dëgg yàlla mënu ma xam ni ne si yaramam mais daal dañ ko dóor ba mu dee ñu sànni ko si parking bi daw dem en tant que homme de tenue ndax loolu war na ko rey nit ba pare sànni ka ñun la ñun daw ñu si dara nëbboo ñu laaxatuñu la ñuy wax gendarme yi nañu génn suñu dëkk ñu abal ngor nañu génn ñun bañuñu sa dara te lii nii dañ koy topp jusqu'au bout ñu ko bàyyi bañ bañuy porter plainte dañuy def lépp am nañ ay kilifa loolu ñoom seen charge la mais duñu bàyyi parce que ngor fii benn bloc la lii naqari ki moo naqari ñëpp ndax ñëpp gis nañ fay nu mu demee rayal nañu bee paase mujjul fenn mais bii moom si lay doxee rek la ba faw parce que buñ ko bàyyiwu bu ëllëgee dinañ osé mhm. duñu fekk suñu biir kër duñu rey mhm. ndax manifeste yi gendarme yi dundal nañu lu ne mhm. dañ lay fekk ba sa biir kër attaqué la jël li nekk sa biir kër dem seen yoon ñu bàyyi yor seen doole duñu na loolu ñun dootuñ ko nangu assez jeex na fi tey Marie Gueye Samba Marie Gueye yu ñëpp la yamul sax ngor ñëpp ko xam ndax dafa nekkoon ku baax ku ouverte ku duggante ak ñëpp macha allah loolu la yàlla def si moom ñëpp ko bëgg nag ndax nitu ñëpp la ñëpp ko xam macha allah war na am ay six bant ay seex la mujj am nii instant bii nii bébé yi amaguñ sax un an le vingt trois lañ war am un an waaye seex yi seen bàjj bàjjanu Marie Gueye moom moo leen yore depuis ñu juddu ba tey moo leen yore macha allah. waaw si lu lekk la doon yëngu ndax jàmbaar la woon daa woon toog da doon jënd di jaay di liggéey aussi macha allah. nga gisee rek ah ni ko ñëpp xamee Mamadou Samb di rakk si baay bi jur ma Gueye Samb bokk ak moom ndey ak baay depuis barke dem ba léegi ñu nekk si aw naxar tiis maanaam muy. Mari Samba toog naa ñu naan ataaya ñu woo ma ne gendarme yi dañ ko malmené mo yëpp ko seen oto tëj ko si biir il paraît dafa daanu ay rab ñu tëj ko si biir oto bi dem def patrouille ñëw fekk mu sedd si biir oto bi ñu wàcc ko teg ko si trottoir bi dem seen yoon nouvelle boobu lañ ma jox man ma jóg dem hôpital Ngor bi effectivement bi mu ñëwee fekk dem fa kiñ ma woon dafa dee si laa wóññeeku pour lijjanti kayitam yi te see xale bi nga xamante ne moo ma àndoon dem plage di feexlu ma yaakaar na nag fii Sénégal ñun ñëpp ñoo fi bokk yam ñun ñëpp am nañ bu ñu bëggee féexlu dem place bi ñu bëgg a dem feexlu foofu si noonu la ko defee jëndoon reeram dem ànd ak benn copinam toog si plage bi di féexlu si noonu la benn rafle ñëw ay gendarme demandé leen seen pièce d'identité copine bi ne ko man day yoruma pièce d'identité mais yor naa photo sama biir portable wan ko ko gendarme bi jam ko torse bi mu ne ko amoo droit pour def ma lii mu bàyyi ko dem si Marie Gueye muy ki nga xamante ne moom moo décédé xale bi génn carte d'identité ndax ko jox mu ma ko joxee carte d'identité mu xool ba pare naka xàmmee naa la yow saago ko nekk doomu araam nga xale bu jigéen bi tontu ko ne sama yaay jurul doomu araam ci noonu la waxante ak moom mu embarque mu oo ñeneen gendarme ñu embarque bloqué si oto bi la am si biir oto bi nag xamuñ ama ko def ump na ñëpp mais biñ ñu ko wàccalee ab néew la ñu tegal foofu mu yaakaar ne nag si laajam carte d'identité rek dong dong dong dong ama lii war si mën a am ba dee di dem nañ def fi ñu war dem yëpp te on va parce que enquête bi mu ngi nekk en cours te dañuy porte nañ plainte au niveau du procureur te yaakaar naa justice sera faite wax na nag ñun waa Ngor suñu problème mooy hmm, genre yu mel nii bëgguma nag histoire bi ñu jëmale ko si beneen sens waaw pour le moment dañ focaliser wu si lii histoire bi ni mu demee non ndax administration lu si dugg non ñun tamit dañ jéem a dox si côté boobu ba démentir si ñoom li ñuy wax parce que autopsie bi dafa wax ne ah, xale bi dafa amoon feebar bu nekk si moom man dag ma yaakaar ne tout un chacun de nous isi am nga feebar booy dox waale moom laa yaakaar ah. waaw li may wax nii nag man rek la engagé ah loolu laa yaakaar te moom laa gëm autopsie bi dafa wax ne ñoom feebar bi ñu gis ci moom bi ko rey nii xam ah, li ko rey nii feebar boobu la mais ñun gëmuñu loolu te laaj naa médecin légiste bi nga xamante ne moo nekk foofu hôpital Citeaux mu wax ma mu nekk man gëmu loolu dama témoin nee na ma nag boo soxlaatee leneen na nga ñëwaat foofu ma gën a leeralal waaw ndax ay fee la ñi mu àndoon témoigné nañ ne ama elle a été malmenée par la gendarmerie si seen biir oto biñ ko wàccee dañ ko tëral loolu moom am nañ preuve yi moom mu leer nañ kon a ah, lu ñu mënta wax tamit ñoom ama ça n'engage que yaakaar naa suñu avocat ama il fera le travail nécessaire ama pour démentir loolu yëpp waaw te on va pas en s'arrêter là léegi nag deuxième point bi concernant le village xam man du ma ko digal kenn te du ma fa yebal kenn santew ma kenn mu xeex suñu waxati bi santew ñu kenn mu dem xeex yi yaakaar naa si ab dëkk kii bañ insécurité xam kooku nit ñi dañ la war a xoolaat sax xam di la tëj di la denc parce que y' s' il y' a pas sécurité si dëkk stabilité mun na am foofu. stabilité bu amul si dëkk développement mu ñu am foofu kon li ñuy wax nii yëpp ama man bugguma fenn parce que dëkk ama dafa war a am ñu koy saytu si côté boobu te dama si ànd on a nag un problème duma ko weddi ak gendarmerie bi fi nekk nii muy commandant bu jigéen bi fi nekk fii Ngor am na ak moom problème te man ma mas am confiance ci moom parce que dafa am fu ma jaar ak moom je le dirai haut et fort loolu wax naa ko démb ama section de recherche du ma am mas a am confiance ci moom parce que lu mel nii daf ma dal le 29 juillet bi mu def lu ko neex ma présent tere ma bind plainte di ma dawloo bàyyi ba le jour yi nga xamante ne maa ngi dem hôpital pour lijjanti sama si doom mu boucler enquête jàllale affaire bi kon kooku man mënutuma am confiance moom te kooku la dëkk bi amal problème nag fi mu ne nii maa ngi dégg na nag il était sur les lieux il était sur les lieux si si si si jour boobu waaw ñun nag bañu gendarmerie fi say si ngor bañu ñu aussi pour sécuriser suñu dëkk bi parce que li fi xew nii ku ak nit man ça fait huit ans maa ngi alerté boobu ñuy ñuy waxaguñu li ñuy wax ni say huit ans maa ngi alerté nit parce que dama gis dëkk bi fu mu jëmoon waaw léegi nag ëpp nañu ay loxo parce que man damay dox ku miin dëkk bi laa nitu ñëpp laa waaw façon nit ku nekk laay gis dëkk bi léegi ba tax daf ma ragaloo ba ma tiit toog sama biir kër kii xam na ni ma génnatuma sama kër trois jours nag avant sama doom décédé man le vingt neuf juillet bi passé interpellé na le chef de village muy en l'occurrence Mame Babou Samb ma ne ko yéen da ngeen war di oote fi mu nekk nii parce que urgence la loolu allez voir le maire ama le président des frais a ah le président war dugg ngeen toog geen waxtaan ama si jëm si di sécuriser dëkk bi parce que lii may gis nii fi mu jëm baaxul waaw trois jours après si la dëkk bi ah si la si la si la si la malheur ah, boobu dalee defuñu ko ba tey nag wax ji nag mu ngi bare ñii nga xamante ne ñooy nekk fii di wax ne bëgguñu fi gendarmerie ku ragal gendarmerie dafa fekk yow la ngay def moo baaxul pour man parce que gendarmerie mën nga dëkk ak doo jot doo jotante moom dara waaw ñii ragal nag am na lu ñuy ragal ñoom ñoo xam lu ñuy ragal lan la mais ñun en tant que kilifa fii si dëkk bi xam nga nous avons besoin et besoin encore ah si sécurité pour gendarmerie ñoom jàppale ñu fi salaam